amour dansant bu kër yi neex neex neex ba ngeen fàtte ni amour dansant moo fi jaar amour dansant mooy kër gi mën ci cuuraay ak ci ay parfum ay oud yu kenn mësta gis ay xeetu cuuraay yoo xam ni ay innovation fait par Nech Nech dafay créer xeetu cuuraay yu neex pour kër yi gën a neex amour dansant lépp loo bëgg ci cuuraay wala ci ay parfum boo duggee amour dansant daa ko fa fekk amour dansant ma nga Sacré-Cœur troit vers Yankees foofu rek moo am ay cuuraay yoo xam ni mësta am fenn boo ci bëggee am mën nga ñëwoo suñu numéro 78 421 96 96 78 421 96 96 Amour dansant est l'endroit parfait pour vous da ngaa bëgg lu neex jëf la. xam naa dañuy dugg ci loo xamante ni euh, wàllu yoon la ba léegi ndax gis ki nga xamante ni moom mooy Sitor euh, Sitor Ndour ex DG COUD moom la ñuy euh, benn soxna boo xamante ni mi ngi sant Thiam di séeréer doon liggéey ci moom di ko tuumaal ni daf ko violé sax jamono ji may wax yéen yor ma nga ca loxoy yoon mbir moom noo ko noo ko gisee. ah loolu ndax daf may métti trop ma si prononcé ndeysaan. Mhm. waaw surtout sama xarit la. Mhm. am na nattu bu métti nag. Mhm. pourquoi période bi ma ma jaaxal su fekkee affaire bi xaw naa yàgg. waaw xam nga fii sooy def politique rek am na ñu ngi koy xeexee ñëppay juum. yàlla na si yàlla wis ndox bu sedd guy waay. ñu seet naka la ñuy affaire bi. jéggalante rek loolu laa si mën a wax. mais bon loo xamante ni sage-femme bi euh, Madeleine euh, Philippe Senghor je sais pas su ma jumul si wax ji ñu ni sage-femme bi euh, daanaka bind na kayit bi mandargal ni xale bi egg nañ ci moom maanaam violé nañ ko bala jamono ji ma waxee mu ngi nekk si retour retour au parquet retour de parquet léegi mbir moom comme tegu na ci loxoy yoon lan moo tax nga bëgg mu bëgg luñ ko ñu koy waxtaanee. nitu jàmm nitu jàmm rek la naka takk sax dañ hmm. ko may rek ñu seddal affaire bi c'est tout man de vraiment yéenewu ma ko nattu bi mhm. Mhm. mais parfois nag féministes yu bari du ñu d'accord souvent parce que dañu naan euh, bu nit violé ni dañu war a topp mbir mi ba yoon soxlawul ay baale ak masla le viol le ici sévèrement puni sanctionné mhm. dem na ba dix ans de prison ah donc c'est c'est terrible là donc euh, affaire bi c'est pas la semaine dernière non ce problème là c'est pas la semaine dernière femme bi moo moo ça date de quand daanaka mën na un mois voilà mot na un mois euh, nañ si wis rek ndox bu sedd rek man da su doon man maay si toog nduur. damay damay damay dañ koy may xale bi rek. Mm. voilà ñu ah, may ko xale bi après mm. euh, def compensation mm. dédommagement. ñu seetlu affaire bi moo gën toroxal bi nga ko bëgg a toroxal na ko dégg yàlla. mais bizarrement bizarrement ñu bari nag bu doon ñenn sax ñu naan bu doon doomu baadoo la heure bi mën naa yàgg si kaso bi trop. bu dee boroom alal bu defee gars yi maslaa mu génnee ay millions dimbali xale bi ba ñu ci suuf bu dee doomu baadoo lu ñu jël fàtte ko ci kaso bi. loolu tamit maman. Euh, nit su jégaloo rek je sais pas ndax parce que doomu baadoo li souvent dañuy jégalut. mais teewul dañuy yàgg si kaso bi. léegi borom xaalis bu ñu jégaloo ñu ñi yàgg si kaso yi en général mooy ñi nga xam ne dañuy bañ quoi. moo mm. xam dañuy bañ et puis euh, affaire bi day xaw a euh, sauvage quoi. Mm. voilà donc man daal pour ma part. Mm. je suis une femme. je je défends les femmes naturellement. Mm-hmm. moi je pense que ce problème. mun nañ ko mun nañ ko régler autrement. Mm-hmm. voilà mm-hmm. mu sedd quoi. Mm-hmm. mais yaay xale bi tamit est-ce que nekkul def nekkul amul tort en quelque sorte xale bu donte nag euh, bi mu nekk ci kër comme wala Dakar. non Dakar gii la ah, nekk ak ay si ñu wax. mais par exemple xale bu am 16 ans est-ce que war nga ko bàyyi donte nag jigéen d'habitude surtout ñu nekk si àll ba boo amee sax 7 ans ngay dem di rooti di liggéey sa yaay c'est normal mais est-ce que indi sa doom Dakar mu fiy liggéey. si 16 ans est-ce que loolu tamit waruñu ko xoolaat. bon pendant les vacances. waaw xale yi léegi loolu la ñu xewal. Mhm. élèves dañuy jóge Dakar. Mhm. dañuy joge si région yi di ñëw liggéey pendant les vacances. Mhm. pour am xaalis pour jënd fourniture scolaire. donc il euh, y a beaucoup de cas de 16 ans 17 ans 18 ans dans les familles. Euh, ici à Dakar parce que dañuy ut si fourniture scolaire. voilà donc euh, moi je pense dans ce problème là ah, mais est-ce que yow di nga jël jànk bu am 16 ans di ko liggéeyloo sa kër. du jël jànk bu am 16 ans di ko loo mais mun na daanu sama kaw. Mhm. mun na daanu sama kaw am na kenn benn xale bi ma indil. Mhm. dafa wut si fourniture. Mhm. sama doom la. finalement dama ko accepté parce que je voulais pas prendre des jeunes mais je pense que am na benn 16 ans ou 17 ans bu nekk si kër gi boo xam ne dañ koy indi récemment mais comme xale comme xale la si kër gi. fourniture la donc elle fait des petits nettoyages après bon ñu préparé ko mu ñibbi mbay quoi au mois d'octobre. da nga koy protéger bu baax. bu baax. macha allah da nga koy bu baax waaw. Mm-hmm, mm-hmm. parfois sax sama bureau la ma toog di ma xaar. Mm-hmm. ndeysaan mu lay nettoyer. voilà liggéey bi du métti quoi en fait. bu muy doog a ñëw sax dafa ne woon liggéey dafa bëri mu bëgg a bàyyi ab rakkam bi ñëw indiwaat ko. léegi moo gën a miin. ndeysaan. commencé na miin kër gi di jël téléphone yi di elle s'intéresse à la rajo donc hmm. euh, voilà mi ngi dund beneen dund. Hmm, Touma Guèye sax mën nga ko def animatrice wala présentatrice pourquoi pas. <laughs> mën nañu def animatrice waaw en tout cas kontaan nañ ah hmm. donc euh, kontaan nañ bu baax a baax ci waxtaan bi. c'est toujours un plaisir mais pour le cas de ah. yàlla na si yàlla wis ndox bu sedd daal yéene wuñu ko kas wax dëgg yàlla. xam nga gis nga gis nga sooy campagne. sooy politique. sooy politique dafa bëri galgal de. ah la wax lii. lan nga bëgg a wax foofu. dama bëgg a wax que say politique ñun jigéen ñi. Mhm. yenn góor ñi ku su nekk na nga def attention ndax dañ lay ëffal. waaw yi moom ak jigéen ñi xamuñ seen problème politicien bu jigéen da bu góor da ngay muñ. jigéen jigéen. politicienne bu jigéen da muñ góor. Mhm. façon provocation bu nekk ak piège bu nekk mun la ko tànt mhm. su fekkee da ngaa bëgg jigéen. da nga lay ëffal ak jigéen. ay militant jigéen yoo xam ne dañuy ñëw ne dañuy bëgg bokk sa parti yëpp ay am. billaahi. soo fekkee nag mënuloo muñ jigéen da ngay tombe si piège bi ay waay bés boo tombee si piège bi su ku la cof tuuti ñu yaatal ko ku la tuuti rek ñu yaatal ko yàlla bul da am problème ak état bi voilà ñu yaatal ko waaw yaatal ko moi je pense que euh, du ma du ma du ma juge mm-hmm. mais nit su demee ba reconnaître ba ne sàng ma sutura mm-hmm. wàcc war naa faa mën a am ak réparation. toog laal bëgg na xam lu gën a bon mooy violer agressé yàq xale nee ma tey dem sama yoon bañ ko reconnaître. Mm-hmm. am na def mm-hmm. ah, mais ku dem ba reconnaître benn tort doo ne yaa viol impérativement dama koy teg 10 ans. quand une ko reconnaît un un tort. Mm. am na loo xam ne mën nekk ko arranger si souvent. Mm-hmm. oui oui oui. ñu gérer affaire yu xale bi tamit sinon c'est comme su fekkoon bon am na ku ñu dee. Mm-hmm. man dégguma li nga wax de <laughs> loo bëgg a wax de <laughs> nga bëgg a wax da nga bëgg a wax daal dafa am keneen ku si jafandu daal. day mel ni ko day am ku dee rek bañ a pour mu bañ a baale. Mm-hmm. ndeysaan. da nga bëgg a wax xale yi dafa am ñu nekk si ginnaaw. amul lu ñu arranger si àddina bi. toor boo ti gis ak dooñ tooñ boo ti gis. ñaari parti yi mun nañu waxtaan ba trouver solution. Mm. noonu la société africaine bi demee. mais viol boo xam ne doo xam su ko la violé kan la. wala da la da la romb rek violé la. tooñ la boole si boobu moo gën a métti moo gën a yomb a àtte mm. man de su ma déggee ñu ne Sitor Ndour viole na mm. sama xel dina tey. surtout intellectuel bu doon yor yor ay école euh, de école de formation ak yooyu. waaw nekk daanaka enseignant la. Mm, waaw donc voilà. waaw waaw. Hmm. daal gëmoo ko daal trop daal. du ma ne gëmoo ko mais affaire bi daal doy na daw na doy na. Hmm. da ngaa jàpp ni daal dañoo xaw a profité si benn occasion daal pour téewaale ko. loolu lay ñëw tuuti nag. Hmm. ndeysaan. yàlla na si yàlla wis je pense que quand même dina si wis ndox bu sedd. vraiment. vraiment dañoo yeewu suba teel rek. affaire bi ak moment bi quoi gis nga ñuy def revue de presse bi sa bi si tombé. dañu ne dañuy taxaw. day man parce que seetaan naa Ahmed Aïdara bu muy def revue de presse bu mu tombé si affaire bi dafa taxaw. même Sénégal sax même suñu naataangoo yi ñu koy jël sax bi xale bi jigéen di prononcé tur bi sax moment boobu dañ ko xaw dañ ko xaw a kët ba d'ailleurs dàmbooj sax xaw na ci mer ni presse bi dañoo waroon a bàyyi loolu ndax bu doon amaana bu doon euh, si waa Sonko yi la yooyu autocensure nag moo baax lu ñaaw kenn du ko nettali si kaw mm. mm-hmm. Maître El Hadj dañ ko gis muy saaga normal nii si caméra kanamu caméra yi ñu koy partage si TikTok beeg yooyu est-ce que rafet na politiciens yi léegi bëgg a commencer di banaliser li nga xamante ne mooy saaga saaga ndey nii ouvertement nii quoi. Mm. il va se ressaisir. Mm. Mm. amul amul dara. ko ku ko soo ko seetaan soo seetaanee sa bopp nga def bêtise. après da ngay da ngay da ngay éduquer sa bopp. Mm-hmm. voilà day am ay période d'agitement yi nga xam ne gars yi dañuy agité quoi. mais après ils vont se calmer mais rafetlu woo ah non saaga duñ ko rafetlu si kenn. Mhm. mais gaw ma mu saaga ndey dafa saaga ban façon saaga. Ah, saaga mënu ma see egg dañ ku taal dëkk bi ñu taal sa jaar fu ñaaw. ah moom dafa xumb yàq waaw. da dafa jaar ci digg nag suñuy ñàkk nag dañuy tiit nag. Mhm. waaw ñàkk bi affaire dafa ñaaw ba noppi de. Mhm. <laughs> ñaaw na ma noppi te gën a ñaaw. dafa gën a ñaaw de. ñaaw na ma noppi. mi te day gën a ñaaw. <laughs> ñaaw bi moo tax gars yi yaa ngi jafur de. gars yi jafur ji jafur. dafa ñaaw nag affaire dafa eh. ñaaw. non ñaaw na ba noppi parce yi ñoo ñoo daan ñëw tamit. Eh. mi ngi ñaaw kay. mais <laughs> maa ngi lay teel temps nii rek xamoon sax. lii nii suñu frère boobu Alim Tam borom ñaaw na ba noppi te day gën a ñaaw <laughs> mi ngi ñaaw mais en tout mais waxtaan bi moom rafet na ba nopp rafet na moom waaw te day gën a rafet. te day gën a rafet maa la bàyyi nga tàggatu en fait ak nga wax li nga xamante ne amaana bëggoon nga ci wax te te te laaj. ah non li ma bëgg a wax rek mooy. Mhm. bi ñu nañuy joxe la vérité des urnes. Mhm. su fekkee benn kii Yewwi. Mhm. ak wàllu. ñoo am majorité. yeneen li si ñëw dooleeku si ñoom ñu gën a am majorité. Macky Sall naka nangu. de démocrate daal. mais naka nangu te moo nangu ko même su defee bere beexte. même su defee. terre. teer xale yaa ngi jël gaal yi ba léegi di dem te téyewuñu leen te téyewuñu leen et que son équipe nargue nargue les Sénégalais son snob les femmes ñoo bañ ñoo lànk askan bi daal ñoo sonn o oh, bañ ñoo lànk ñaari mandat doy <laughs> ñaari mandat li si des nag moom mm. ñu jeex ñun dañoo démocrate sax lay jeex eh. mm-hmm. d' kontaan naa joxe rendez euh, les minutes dañ leen <laughs> nga tàggatoo doo tàggatoo wala baax ndax na ba noppi uh-huh. ah, donc euh, li si assemblée nationale nag daa ñaaw ba noppi uh-huh. da ngeen xam nag. gars yi su ñu nee day gën a ñaaw yéen la ñuy wax de. <laughs> ñaaw na woon na si. ñaaw na ba noppi de bés bu nekk muy gën a ñaaw. <laughs> merci beaucoup mais en tout cas dañuy dañuy dañuy dañuy nuyuwaat bu baax a baax ah sa équipe technique bi nga àndal si LMD TV. di leen wax ne eh, LMD TV nag waaw man sama site léegi ah, donc désormais dinaa koy bàyyi xel di leen euh, commandé à que ngeen dem di ngeen koy like ngeen di abonné di wax ni bépp waxtaan boo xamante ni ñëw nañ fi di ko seq ak Ndella Madior Diouf euh, ngeen koy mën a am foofu en live en direct. di nuyu sama ñaari yi nga xamante ni ñoom laa fi fekk euh, di nuyu Bachir bi nga xamante ni di ko ziar moom mooy sama cameraman saa su moom mooy faral di ñëw Ouzin moo nekkoon si présentation bi jaajëf. di metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi ay toog sa ordinateur di tappe di kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es dernier de la classe indignité caractérisée. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi